nag ñoo ngi àndoon nag waa Elvision nag doxantu woon fii ba Almadi ñoo fekk fi nag soirée Keba Seck damaa bëgg rek sama caméraman bu ñaawul bi ànd ak man ma ko xale jigéen yi ak xale góor yi nan lan toogee gëm naa ni nag xam naa ni ma def saf na leen nii rek laa def de sama nuwaa argenté rek topp ma ci biir salaamaaleykum salaam sëñ bi ngi nii ci loo ne ci loo nekk waaw mbaa yaa ngi am jàmm maa ngi am jàmm lépp jàmm. waaw tey danoo ñëwoon fii nag Cap Ouest. waaw ñëw fekk Keba Seck di soirée. ma gis la nii nga def nii baax bëgg a def. waaw sañ sa rek ñëw jàpp si soirée bi. Ah. man moom xam naa ne mbay daf maa bëgg a tooñ sax mais xam na ne man damay jàpp si liggéey bi. Uh-huh. waaw ñëw pour féexal suñu xool. daal di bëggee daal di bëggee àjjee ñibbi tëdd. ah kon neex na. ba sax jàmm incha allah allah jeex na tàkk. tey dama doxantu woon fii rek tey almadi ñëw Cap Ouest ñëw fekk fi Keba Seck di soirée ma gis la nii nga def sa bleu bu baax sa bleu blanc bu baax lan ma waraloon say tànk tey ci soirée bi. waaw waral tànk yi rek comme ni ko ñëpp xamee ah ñëw seet si Keba Seck xam nga ndaanaan bu mag bi nga xam ne saa bu yëngoo rek Sénégal ñëpp yëngu. Ah, donc tey moo waral ñu déplacé wu ñëw ba fii Cap Ouest pour fekk ko fi te xam ne bu ñëwee rek li lañ fi am. waaw loolu moom dëgg neexul Keba xale yi nee na dafa mën mais yow yaa ma gën a xam sax yéen ñi déplacé wu ba ñëw fii fekk fi Kéba xam ngeen ne Kéba ndaanaan la waaw loolu dafa leer xale jigéen yi dafa xew nag xale jigéen yi moom la ñuy wër xale góor nga mel xam nga ne bi ngay ñëw fii ci Kéba boo deful nii rek tooj yée damay bañ xale yóbbul ma ko moo tax ma def sama noir argenté rek moo ah, tax kontaan nañ trop waa léegi kon xaaral ma dugg xool xale yu jigéen ñi ci ah, biir boo duggee rek gis la ah, kon neex na bàyyeegu ma maa ngi ni boobu ba tey kii moom dafa mel ni xàmme naa ko fi de sëñ bi loo ne maa ngi fii baa yaa ngi am jàmm bu baax rek. waaw maa ngi am jàmm bu baax. waaw tey daa mel dama ñëwoon euh, Cap Euz fekk la fi nii nga doxantu ñëw soirée Kéba Seck. waaw Kéba moom dañ naan ndox la. xam nga ndox lu mu bokkul du neex. loolu la ko yàlla def euh, ñu nañ ko ñaanal rek yàlla gën a euh, yokk taxawaay bi daal gën a dëgëral taxawaay bi ñu ñaanal ko mu jëm ci kanam. yàlla baax na yàlla jëm ci kanam kon. waaw amiin gis na ni fan yi moom dafa dafa gën a xew moom comme que xewoon na daa gën a xew. waaw mais li si kanam rawul bët. waaw yàlla baax na. affaire film bi léegi nañu seetaan ko. kon na tàkk ba yaa ngi yëg sa bopp soirée bi rek. non soirée Kéba rek du doy. Ah, ndox la nee la mooy ndox. waaw ah, kon jeex na kon. ok kon ñu dugg ci Saliou ci loo ne. Absa maa ngi lay nuyu di nuyu waa El Vision dégg naa moom yéen a xew nag. waaw dëgg neexul dañoo xew nag dëgg neexul. yàlla boo leen xewee. ah amiin tey ñu ñëwoon fekk la ci soirée Keba yow ku la xam-xam xam laa Keba Seck nga ñëwoon rek féex a soxal. waaw xam nga man moom mooy sama waykat. loolu ñi may seetaan ñi yàgg seetaan Saliou Khoulé wala ñu yàgg ko déglu. ci Zik FM ak Sen TV ñoom xam nañ ne benn waykat laa am mooy Keba Seck. dañoo yàgg mu mën a way lool nag. defuma ko ni sama way rek kayit rek mais dafa mën a way. dëgg la yow. ba soirée bi yaa ngi koy yëg bu baax rek. waaw mbay sax daf maa yàqal waaye maa ngi doon baal lu neex. waaw kon ba dan lay bàyyi nga dawaat baali lu neex. très bien ab sa mais nag kon jeex na <laughs> ma tudd rek nag sama sama ami d'enfance sama copine sama lépp muy soxu jamaa noir ah di soxu mu Kéba soxu mu Cheikh Ibrahima Fall soxu da ngaa baal si Kéba. waa Almadi mënul ñàkk tey ñëw. Kéba dafa bok ci ñun ñoo baal ci ko bégee contane mais soir bu neex musta am soir bi neex na bégee dañ ma gis ma law la ba ma la birima sama xarit wa deug neexul sama meilleure copine ngi ni deug neexul saxu jamaano wa saxu mam Cheikh Ibrahima fek sama chauffeur bi nga xamni heure bu may ñew Kéba sek wala may ñibbi rek mom mo way je mom sama wa sama taxi man baangi ni manu Kéba sek bi mu ñewon nak base bi mom chaque jour fay bégee Kéba tay da nga ñewon base bi lol kay xana wa waxat la rek ah, ku ma bëgg japp da rëbb ma ci keba rek wa deeng neena kuko bëgg japp jàpp ko keba fek mo ngi ni mu nekk ma ngi fa ndax day yok doole liggey bi wa deug na neexul day yok doole liggey bi <laughs> no papa papa padro fi la may def ah? mais ya ngi bëgge bu baax non romb na bëgge ah. ma ngi ci aduna bu ku ci keba no gisee keba sekk tay almadi loolu loolu ke xanaa def départ rek yàgg na ko def. waaw loolu dëgg dëgg neexul. ah dëggantaane neex. nii la nekkee ñun. di bëgg suñu xol yi saa su ne. du raw lii rek. maa gis laaj lool. Ah. xanaa déggoo Moussa Texman. waaw kay ma nga. fa la yem nag. ki zër du caaxaan. mësta am. <laughs> wili. Eh, mësta am. ba tey ñu ànd nag waa El ah ñëwoon fii nag Cap Ouest. arrêté ba fekk doxantu fii almadi ñëw fekk fi Pa Doros Mbaye sama papa ji nga xam ni dëgg neexul ku ne xam nga ko ku ne xam nga it xam nga ko ci Kéba Seck mi ngi nii Pape daa mel da ngaa ñëwoon féexal ci sa xol de. waaw doom comme euh, li nga def rek. xam nga yow da ngaa génn pour féexal sa xol. waaw waa El génn féexal seen xol. Pa Doros Mbaye mu ko moo ngi nii def tuunu waaram damaa bëgg nga jëlal ma ko jëlal ma ko kaw ba suuf. mës am jëlal li waaw kay <laughs> Padros Mbaye lan koy wax moo ngi ni sama papa ji bëgg Kéba ku ko xam-xam ko Kéba Seck moo ngi nii fu Kéba nekk man ngi ca wetam léegi nag euh, papa dama bëggoon xam rek ndax euh, féexal nga bi sa xol bu baax a baax bon sama xol parce que ku ne xam Kéba moom fi parce que la boo sur le plan national sur le plan international kenn le ko présenté. ndax njaboot gi mu bokk ak famille bi mu bokk. ba pare nekk goo xamante ni da ngay bat bi na aussi ñu nekk ci ginnaawam di bu ñu da ngay euh, soirée. il faut nga bégee ah, il faut nga bégee moo tax ma pour bégee. kon dégg ngeen sam fii ku fi nekk faaw nga bëggee kon nag am keebaa du caaxaan dëgg neexul. am keebaa du caaxaan. am keebaa du caaxaan. am parros du caaxaan. am El du caaxaan. du caaxaan loolu moom amul sax ay ma dem te ñëw <laughs> non mooy ki xew dafa xew dafa xew dafa xew. Ah. du ay foo du ay foo de moom dëgg la moom. Mm-hmm. keebaa du ay caaxaan. moo waraloon tey nga def nii. def sa lacoste bu ni muut ñëw. non man sam bopp damay caaxaan. waaw Kéba ki ànd ak moom mënoo nekk ay caaxaan en nag pour dire vrai nit ku baax la. Ah. nit ku bëgg ay fan sam la nit ku am kóllëre la nit koo xamante ni franchement tey suñuy bàyyi suñu yëpp yàq mm. suñu ay nelaw. mun naa ne bi ma ñëwee ci dëkk bi ba tey bàkki Cheikhul Khadim Kéba du tëgg soirée bu ma demoon mosul am. parce que dafa am kóllëre duñ fi nekk dañuy nekk bitim réew mu ñuy woo di ñu soññ. Mm-hmm. di ñu góorgóorloo. di ñu am loo jom ñuy toog suñu ay nit di ñëw soirée di dégg mu ñuy wax lu baax loolu dafa neex donc nit ku am coloré mooy def loolu bu ko neexoon bu ñu gisatul dootuñu woo dootuñu wax donc loolu dafa nekk lu sori ci ñun ba tax na tey ñun dañ koy ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg ci aar bi rek yàlla na si am lu koy njortamam dara Cheikhul Khadim comme ni ngeen ko déggandoo man li a waroon na wax yëpp moom mi wax na ko Kéba lu nu wax ci moom benn bàyyi nañ ci moom fukk léegi nag euh, bëggee rek ba ba vendredi incha allah ba dimanche incha Wa dimanche gaynde kenn du ñu fa jiitu mais na nga jox nga ma ëpp na xale bu jigéen. <laughs> mësta am. <laughs> c'est vrai il a raison. Uh-huh. c'est mon ami c'est mon frère. depuis que mu jàpp macha allah am naa ay témoins mësta ba mësta xaddi xalaatu ko bu bu ñëpp toogoon sax moom day ñëw. c'est un ami Baye Massa Sall Ngari. Ndiol maa ngi. am sa waaw papa. Ndiol maa ngi am sa la boole micro ah papa. dégg naa yaa ngi bëgg nekk star nag. maa ngi Elvision ah Elvision. waaw. Ah, eh? ah ah. sam papa ngi nii. ngay visionné. nga ne lan yow. maa visionné fii. yaa ngi visionné visionné. li war a ah, visionné rek xam nga la papa moo war a tax nag ma jël la tey. Ah, xale yi ñëwoon ah xale yi ñëwoon sa soirée defar ba mu baax. comme soirée papa ngi nii. kamal san dugg gërëm waay. nga di ko <laughs> nii la mel waaye ka man sant bu gërëm waay waay mag ñu ci waay la nekkee ak moom na xam nga xam nga ay caaxaan a ngi ci biir fii lépp ambiance yaa lépp bu soirée bi ambiance yaa lépp la doxantuma Alba direct ñëw fekk Keba Seck fii nga xam ne